jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñi euh, seetaan ñu leen di jaajëfal bu euh, baax a baax di am rek tey mbégte nag fas yéene indil leen benn nag jano boo xamante ne jano bu am solo la boo xamante ne ñu ko fas yéene jano rek ak professeur Souleymane Mboup ku ne xam ko ci mu jiite nag centre bii di IRSF di kër gi nga xamante ni moom mooy nag gëstu lu bare bari ci wàllug wér-gu-yaram xam ngeen ni dafa am loo xamante ni lu yees la lu nu gis ci suñum réew mu bokk nag ci variant boobu ñuy wax variant britannique la waaye variant bu yees la ndax rek euh, ay mandargaam yoo xamante ne euh, wuute na ak ba nga xamante ne moom la ñu njëkkoon a gis professeur maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay sant di la nuyu di la sant. ma ngoog euh, prof ni ma ko waxee sànq rek euh, ma lay dellu di jaajëfal euh, ci li nga ma accepté temps bi donte xat na waaye nangul nga ñu ko ma bëgg rek prof ñu wax ci variant bu bees bi nga xamante ni moom moo génn muy variant britannique boobu ñuy wax ni sax nag ne wuute na ak bu njëkk ba tey lan lañ mën a jàpp ci variant bu yees boobu. waaw li ñuy ci mën a jàpp mooy léegi soxlaatul ñu koy wax parce que wax nañ ko. Euh, virus boobu ñuy wax sars cov nga xam ni mooy joxe Covid bi dafay virus boo xam ni dafay changer dafay am lu ñuy wax ay mutation euh, mutation yi nag comme ni ñu koy waxee dafay lu normal parce que ñoom ni ñuy leen di reproduire moo tax ñuy def yenn mutation yi mais dañ dem ba gis ni daf ci am mutation yoo xam ni yooyu nag léegi conséquences yi dafay xaw a doy waar am nañ ci au moins ñett yu ñu xam Euh, peut-être du dugg ci terme technique yi am na boo xam ni moom la ñuy wax ci variant britannique bi boobu am na ay mutation mais benn mutation biñ ci gis dafay tax mu mu gën a gaaw wàllaate te léegi sax am nañ ci firnde yu gën a wóor day gën a feebar bi muy joxe day gën a métti donc boobu moom variant britannique dafa am benn mutation bu ko caractériser am na aussi beneen mutation bu nekk li ñuy wax variant sud africain bi boobu moom li ko gën a xame mooy dafay tax ba xeet yi ni koy xeexee ci biir yaram wi muy vaccin wala leneen dootul efficace comme noonu te boobu muta benn mutation moo ko moo tax mu am ko am na aussi beneen mutant bu ñuy wax euh, mutant brésilien bi léegi nag euh, fii ci boobu il faut ñu ñëw aussi. Mhm. parce que euh, euh, leeral nit ñi ni bu ñu waxee mutant britannique wala mutant sud-africain buñ kenn xalaat rek ni peut-être foofu la jóge peut-être foofu la feeñe parce que xarañ yi ñu yore la mais mën na nekk feneen mën a d'ailleurs bu ci mujj rek mooy variant brésilien bi en fait ñu ngi ko gisee Japon mais kooku Brésil la jóge ba ñoom sax léegi presque bëggatuñu ñu koy wax ay variant britannique wala variant sud-africain wala variant brésilien parce que day tax peut-être nit ñi di leen di leen ci xaw a daw alors que souvent mun na nekk feneen te dañ ko seetul ba gis ko donc loolu moom il faut ñu xam ko moo tax léegi dañ ko indil ay non scientifique mhm. mais non scientifique yi bëgguma ci dugg ndaxte vraiment ku ko xamul bu baax doo xam li ñuy wax mooy tax ñuy continuer wax variant sud-africain ou britannique ou brésilien mais vraiment loolu taxul ni foofu la te euh, euh, mën na am feneen aussi léegi nag euh, bi ñu nekkee Sénégal ñun loolu def ñu mës a intéressé mhm. ba nga xam ni dañu commencé di xool variant yooyu léegi nag bu ñuy commencé dañu amoon fii laboratoire amoon nañu yenn technique yi mais yenn expérience yi ak yenn matériels yi amuñu ko woon et comme tey surtout dañu amoon benn réseau bu ñuy wax Wanetaam réseau boobu nag day regrouper pays ouest Afrique de l'Ouest yi mhm. ci sida tuberculose paludisme ci jëkk liggéey mais dafay tax léegi feebar bu ñëw rek réseau boobu mën na ci adapté wu donc ci la ñu nag non seulement doon liggéey ba lëkkaloog ñi fa nekk et surtout ñu ñu liggéeyal ci Gambie ba ci la ñuy nag di xool variant yooyu ba gis ci benn boo xam ni effectivement li ñuy wax variant britannique bi la euh, ñu ngi continuer di ko xool di mhm. continuer di ko xool mhm. ba fan yi passé aussi ñu gis beneen variant britannique mais variant britannique boobu dafa xaw a wuute ak bu njëkk bi ba léegi variant britannique la parce que comme boobu ma lay wax mutation boobu majeure bi leen di caractériser mi ngi ci biir mais dañu gis nag yeneen mutation yoo xam ni xamaguñ nag lu muy signifier. ñu ngi wax sax ne bu yees bi juróom-ñetti mutation la. Mm-hmm. Euh, wute ak bu njëkk bi nga xamante ni juróom benn mutation la. voilà loolu dëgg la bu njëkk bi juróom benn mutation la bi juróom ñetti mutation mais daf ci am surtout yoo xam ni gisaguñ ko feneen léegi nag loolu tey mënul leen wax ni lii lay signifier dañuy continuer di ko suivre di xool euh, comme bi ñu koy wax euh, jëkk a wax ci variant yi li gënoon tax ñu vraiment pousser pour am surveillance bi mooy gis nañ ni ni mu koy waxee dafay wallaate bu gaaw mais gis nañ ni aussi peut-être yenn vaccin yi du am efficacité bi ci war doon nañ wax mais léegi wóor nañu que peut-être yenn variant yi surtout variant britannique bi feebar bi muy joxe xaj na ak peut-être rey bi muy rey mooy gën a bëri léegi aussi ñu ngi doon wax ni te loolu aussi gis nañ ko parce que gis nañ ko France am na ñoo xam ni suñu yoree beneen variant bi kenn du leen mën a gis ci test yu ñuy def moo tax loolu dafa am importance non seulement ci euh, lawaayu feebar bi non seulement ci vaccin yi mais aussi xaj na ci feebar bi ni muy développé ak aussi euh, test de diagnostic yi moo tax vraiment léegi fii ci IRESSEF loolu suñu priorité la mais biñ koy def dañ koy def Sénégal mais dañ koy def aussi dëkk yu ñu euh, wër ndaxte li gën a am importance mooy bien sûr xam fu mu nekk ci Sénégal mais xam fu mu toll aussi ci yeneen dëkk yooyu parce que mën na fa jóge dugg si ci biir dëkk bi. ci gàttal professeur kon mën nañu wax ni variant bi moo gën a tar euh, moo gën a gaaw ci wàllent bi moo gën a gaaw a rey également. Euh, euh, euh, pas bi ñu mujj a découvrir parce que boobu il faut nga nga nga gistu ko lu yàgg mais xam na ni variant britannique bi léegi leer na ni mooy gën ñaar ñaar yëpp sax mais variant britannique bi lawam moo gën a gaaw xam na ni feebaram aussi gën na métti ak reyaate bi mais gis nañ beneen variant France boo xam ni aussi test de diagnostic yi vraiment presque du ko gis donc loolu dafay lu doy waar parce que mën nit mën na ko am euh, nga def sa test doo ko gis donc il faut nga utiliser yeneen technique bu sud africain bi li tax ñu gën ko xam mooy dafa am mutation boo xam ni moom yaram bi dootu ko mën xeex comme bu njëkk même suñ la vacciné et moo tax benn yenn vaccin yi amul efficacité bi ci waroon loolu nag léegi dañ ko def ñun programme bu prioritaire fii ci IRSF pour di continuer di xool variant yooyu parce que même gis ngañ France temps yi ak yeneen dëkk yu bëri dafa am troisième vague troisième vague boobu li ko gën causé mooy variant boobu te xoolee soo xoolee virus yi fay surculer dafay gën a gaaw yooyu léegi presque ñooy majoritaire donc dafa am importance vraiment ñu am programme boo xam ni vraiment dafa focaliser ci variant yooyu euh, troisième vague boobu nga tudd léegi ci réewum France euh, fii ci euh, Sénégal ndax war nañu mën a jël suñu matuwaay ngir mu bañ a yegsi voilà donc actuellement li ñuy xool mooy Sénégal wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ci phase de déclin bi feebar baa ngi fi euh, law baa ngi fi wàññeeku bon suñu defee test yi aussi pourcentage yi ñu ci am suñu jëlee même test yi dafay wàññeeku donc lépp ngi wàññeeku courbe yi daf ko wone mais warul tax rek ñu defa ni day jeex et vraiment li ñu seetlu effectivement mooy dafa am bàyyeeku bu bëree bëri donc nit ñi il faut ñu gën a même si commencé vaccination bi dañuy commencé rek yeggagun foo xam ni peut-être dinañ am wóorande ni lii war nañ ko mën bàyyi donc mesure yi ñu wax dafa war kii léegi nag suñ koy surveiller ci la ñuy xool nu variant bi évoluer et xaj na loolu moo ñuy wax nu ñuy évoluer mais comme niñ ko waxee woon troisième vague am na ci yeneen dëkk yi il faut ñu xalaat ñun tamit ni mën na fi yegg si euh, moom la ñu waxoon ci deuxième vague bi mu yegg fi troisième vague aussi mën na fi yegg si donc même su wàññeekoo lépp lu ñu doon def rek niñ ci gën a góorgóorlu justement pour ne ko parce que surtout su de variant bi ñëw na fi lu baax wóor na ni euh, gaawaayam day gën a yokk daal. day gën a yokk mm. euh, yaa ngi koy wax léegi euh, muy variant bi ba tey ñu des bi amee juróom-ñetti mutation bi ñuy wax ni ndax mën nga ñu wax rek ci anam yi nga xamante ni ci ngeen ko gisee fii ci laboratoire bu IRESSEF ndax xam naa ni gëstu bu am solo ngeen ci def. voilà léegi comme ni ma ko waxee bu njëkk dañu vraiment dañu ci doon commencer mais xamoon nañu am na xam yu ñu soxla xamoon nañu am nañu. équipement yi ñu soxla am na formation yu ñu defal nit ñi loolu lépp nag dañ ko def ba nga xam ni lépp fii lañ ko def léegi nag léegi dañu doon xool ci prélèvement positif yi ñu am yëpp dañ koy commencé di ko segg di xool ci ban la variant bi nekk léegi nag ci noonu lañ ko defee loolu day continuer te dinañ ko jéem a accélérer pour mu gën a jege même prélèvement yi nga xam ni ñoo mais dafa am technique yu bees yu ñuy commencé ñu ngi koy testé su fekkee yooyu fexe nañ ba mu en tout cas dal suñu xel loolu dinañ gën a gaaw ci loolu parce que dina tax presque ni kuñ fi gis positif rek rapidement dinañ ko mën caractériser pour seet ndax variant bi la wala leneen léegi nag comme ni ma ko waxee dafay nekk vraiment programme prioritaire mais ma insister sur le fait que formation bi ñuy def nii day tax aussi ñu jàppale yeneen dëkk yi ñu wër pour ñu am capacité yooyu wala suñ ko amulee ñun dinañ leen ci jàppale parce que xam li xew Sénégal baax na mais xam li xew dëkk yi ko wër aussi dafay lu am importance. Euh, euh, professeur ni ñuy déggee variant yi ah variant brésilien variant britannique ak yooyu est-ce que tamit mënuñoo xëy dégg variant sénégalais. ah mën na am mën na am kenn du ko kii euh, mën na am comme je dis et même suñu waxee variant sénégalais bu mu tax rek ñu xalaat ni. Sénégal la jóge mën na jóge feneen aussi ñu gis ko fii mais dafay am caractéristique yu yu bees a bees a bees loolu moom dama ciy insisté bu baax a baax a baax c'est sûr que dëkk gis gisoon ngeen li xew même benn yoon entre France ak Angleterre ay mesures yu ñu jëloon ak yooyu yooyu yëpp nit ñi dañ ci war vraiment dal xel di di di jiital xam-xam beeg yu mel noonu ak di di bañ rek. pointé du doit euh, nit ñi parce que peut-être Angleterre lañ nekk ñu defa ni ñoom ñëpp dañu am variant beeg yu mel noonu loolu dafa am importance. yaa ngi wax sànq également euh, lu soxal euh, variant yu yees yi ah, ak maanaam ni ñu taree ak yooyu wax nga sax ba ni léeg-léeg soldat yaramu nit ki du ko mën a xeex ak yooyu est-ce que kon ñàkk yi nga xamante ni génn na mën na xeex variant yu yees yi ba ban pourcentage lañ mën a dem. voilà léegi euh, euh, euh, question bu am importance la et xam naa ni da may jéem a <laughs> pousser ma wax yenn yi. déedéet <laughs> mais question bu am importance la moo tax justement am programme varia yooyu dafa am importance ci fànn yu bëri mais surtout fànn vaccin yi waxoon nañ ko mais boobu amuñu ci woon lu ñu leer. comme variant sud-africain bi et effectivement après dafa wane ni euh, de 66 pour cent léegi presque 20 pour cent bi la mën ci variant boobu donc loolu nag dafa xam ni loo xam ni dañ ko war a topp di ko xool di ko xool léegi aussi euh, gis nañ ni ñiy defar vaccin yi dañ ciy commencer tenir compte ba léegi dañuy suñuy defar ay vaccin génération beneen dañuy tenir compte ci variant yooyu ba nga xam ni même su amee variant en tout cas yi ñu xam vaccin yi ñuy defar dina leen mënal dara donc loolu day loo xam ni vraiment topp ko rek lañu ñu lu euh, luñ ci gis ñu wax ko yooyu. mais li ci métti mooy yii dafa génn te fekk ne ñàkk yi moom euh, daanaka liggéey nañu ko ba noppi ba ni nga ko waxee léegi jëluñu ko en compte aussi. waa si euh, bon jëloon nañ ko en compte mais dama mës wax ni course de vitesse la. Euh, dafa am course de vitesse entre vacciner nit ñi ak variant yooyu parce que su li nga gën a gaaw a vacciner peut-être ngay am nit ñu gën a protégé donc te jël nañ ko en compte mais suñu bëggee wax dëgg rek c'est que vaccin yooyu ñu jëkk a disponible yi ci ëppoon mooy boobu vaccin moo ci presque ëpp fii ci suñu gox yi ak li COVAX di maye heureusement bëri woon na wax mais bi ñu seetloo li mujj yëpp ñëpp d'accord nañu ni vaccin bi mën nañ ko jël même su amee tuuti effet secondaire vraiment loolu du dara soo xoolee bénéfice yi mu war a indi donc pour le moment ne nit ñi aussi dalal seen xel xam ni vraiment vaccin boobu moo gën téeméer yoon bañ ko jël parce que risques yi bokkul entre risque ñàkk sa bakkan ak risque am yenn réaction yi mais teewul tamit ñu koy suivre di ko xool te dafay nekk ci àddina bi léegi kenn mënatul làkk dara su amulee même fii walla am feneen nit ñi dinañ ko xam mais aussi il faut ñu dalal suñu xel seet vraiment lan moo gën ci ñun et di ko adapté nag parce que mën na évoluer mën na am ñu am yeneen vaccin ñu adapté wu mais en attendant daal li ñuy recommander mooy nit ñi nañ ko jël vaccin boobu parce que risques yi vraiment du dara par rapport ak euh, bénéfice yi ci mën a am Mhm. ba tey encore ci ñu des ci variant bi ak euh, vaccin yi nga wax léegi euh, kon su ma euh, su ma tënkee daal li nga wax mën nañ jàpp ni xëy na variant yu yi ak ni mu metteeg yooyu kon vaccin yi faw nit ñi jël ko ngeen xam aussi yéen tamit yëf yi fu fu ngeen toll ci liggéey bi parce que wax naa ko ak ni muy soppeekoo ak yooyu xëy na am na ci yoo xamante ni yees na ba jëluñu ko woon en compte ci bu njëkkoon kon tey mënees naa wax ni ci vaccin yi ngeen sukkandiku pour mën a yenn résultats yi. waaw loolu loolu dëgg la mais euh, avant boobu sax xaj na am na ay gëstu yu ñu mën a gis peut-être même avant vaccin yi mais jël vaccin yi moo ñu ciy gën a jox information yi ni nga ko waxee noonu la mais dañu war a lu ñu gën a gaaw a vacciner rek je crois que ci la ñuy gën a wàññi parce que liy indi li ñuy wax variant yooyu mooy euh, seen kii ñi ñuy répliquer woo. parce que suñ ko gisulee dañuy gaaw a multiplier te plus ñuy multiplier wu plus ñuy générer ay mutation donc ñàkk bi daf ca am solo pour vraiment aussi essayer limiter propagation kii yooyu euh, variant yooyu donc euh, effet donc loolu dafa laaj vraiment ñu continuer di ci euh, di ko seet bu baax a baax nit ñi lépp lu ñu gën a mën a vacciner je crois que bénéfice la mais lépp lu ñu xam ñun ci vraiment yeneen conséquences yu mën a indi suñu rôle mooy wax ko suñu autorités yi pour recommander ko. Sénégal nag noo noo jàngatee euh, vaccination bi ñàkku bi maanaam anam bi nga xamante ne noonu la sénégalais di ñàkkoo pourcentage beeg yooyu noo ko jàngatee ndax nit ñi ñi ngi koy nangu selon jàngat yi ngeen ci def. waaw euh, disons que vraiment Sénégal bon euh, déjà autorités yi chef de l'État bi ak autorités yi dañu def ay efforts pour disponibiliser vaccin yi ci liñ ci mën a am gis nañ ni vraiment un moment amoon na engouement bu baax nit ñi di ñàkku wax jooju ñoo waxoon surtout ci AstraZeneca bi xaj na te du Sénégal rek parce que fépp la woon mais léegi comme ñëpp d'accord nañ ñi mën nañ ko continuer léegi nag il faut nit ñi dalalaatal seen xel continuer di vacciner wu le temps peut-être que ñuy amaat yeneen vaccin yooyu et comme dinañ ko xool ni ñu ko waxee rek du ñu làq dara lépp en tout cas ñun lu ñu gis ñun ay scientifique la ñu dañ koy wax mais euh, li ma xalaat man sam bopp mooy na nit ñi gën vraiment ñemee dem vacciné wu parce que encore une fois bénéfice bi ñu ci am moo ëpp fuuf fuuf vraiment risques yi ñuy jël ba perte seen bakkan ñaata euh, nit la ñuy gis déjà ñuy perte seen bakkan ci Sénégal léegi euh, dafa bëri ba tey ça veut dire que réalité la donc loolu nag day wane ni kenn mucc ci kenn mucc ci gis nañu président France par exemple mu am coronavirus te moom ni moom dafa jaaxle parce que lépp ñu ko wax def na ko te am na ko donc nag nit ñi il faut ñu xam ni risque baa ngi fi feebar baa ngi fi et vraiment lu ñu leen wax nañ ko def nañu mu continuer seen mesure barrières yi mais nañ continuer aussi di dem di vacciner wu. Euh, sa message bu mujj euh, professeur sa digg askan wi euh, tey ci lan nga leen di gën a soññ mais également sa digg ak sa diggante ak décideurs yi ñoom ñi nga xamante ne tey jile bu ñu nee gunge askan wi ci fegu ci yenn yi ñoom aussi ñoo ñoo war a nekk ca kanam parce que dañuy faral di ko wax prévention. daanaka booy xool doo ca fay waaye prise en charge dafa dafa cher. waaw léegi euh, ci ci autorité yi moom euh, euh, vraiment suñu li ñu leen li suñ li ñu ci gis mooy parce que ñun mënuñu lu dul conseiller leen mooy lépp lu ñu doon def rek pour vraiment jàppale nit ñi pour mesure barrière yi ak vaccination bi nañ ko gën a def. lépp lu ñu mën a accélérer pour que nit ñi gën a yokk vraiment prévention bi mais également pour que euh, aussi moyens yi ñu soxla surtout pour vacciner ak li fi am ak yeneen nañ ci gën a góor góor lu mu gën a ñëw nit ñi di gën a vacciner euh, li ci des moom moom la ñëpp di wax nañu xam ni vraiment feebar baa ngi fi et feebar bi day reyaate vaccin yi pour l'instant pratiquement du reyaate te daf leen di aar donc soo comparé loolu nañu ko ñeme dem jëli vaccin bi mais aussi nañ continuer seen mesure barrières yi même suñ leen vacciner dañ ko mën continuer ba nga xam ni xaj na am na fenn suñ fa yeggee peut-être boobu dinañ mën a alléger mesure yooyu nga xam ni vraiment moom lañ teg pour état d'urgence bi da jóg na waaw état d'urgence bi jóg na parce que euh, euh, dañuy comparer waaw parce que aussi dañuy seet euh, dafa am yu bëri yooyu mettre en équilibre Euh, euh, entre euh, aar nit ñi mais aussi doxal dëkk bi kooku moom fépp lañ ko gis donc dafay am un moment aussi il faut ñu jox ñun autorité bi li ñu xalaat mais autorité bi moom comme li ñuy wax moom moo am vue panoramique c'est-à-dire mooy gis lu bëri ci dëkk bi loo xam ni ñeneen ñu duñ ko gis ñun mënuñu lu dul digal ko ci li nga xam ni foofu la ñu ko mën a digal mhm. donc suñ demee ba décider ni kii na ko xaj na dañu am yeneen information yu leen di permettre ñu ñu def ko. il faut nga mën a def vraiment benn équilibre boo xam ni non seulement di nga aar nit ñi mais aussi dëkk bi dina continuer dox. jërëjëf euh, professeur euh, Souleymane Mboup ñu lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nit euh, ñu ngi leen di jaajëfal sant leen gërëm leen dig leen daje rek ci beneen jotaay waxtaan ak beneen borom xam-xam jërë ngeen jëf.